nit ki tey si suba bi ñu xëyee rek la ñu dégg ay sox daal di jolli fële ca militaire bu Kati digganteem ak Bamako toll ci fukki fukki kilomètre ak juróom ñu ngi xamal ne ay militaire ñoo daal di dugg ci boobile camp daal di soqi ay sox mu waral sax ay weccantoo am ci loolee tamit moo waral ñoo xamante ne ñoom ñëpp ay représentation diplomatique lañu ñu wax ku nekk sa doomi réew rek na na nga toog fa nga toog ndax jamono ji situation bi jaxasoo na bu baax a baax mu daal di jur ab pëccëxoo boo xamante ne ku nekk yaa ngi communiqué di xamal bu fekkente ne am nga ay doomu réew foofu na nga toog fi nga toog baa nga nekk foo xamante ne làqatu na lool. song bi nag ñi ko amal bokk na ci ki ci gën a fés ñu koy wax colonel Diaw ñu fàtte leen ni song bi ñi ko amal ci bërëb boo xamante ne bëri na ay ministères yu fa nekk moo waral ministère yooyee ak assemblée nationale ñoom ñëpp dañ ko daal di tëj. ba ci rajo télévision boobu sax di ORTM dañoo daal di évacuer nit ña fa nekkoon tuuti nit des fa di wéyal liggéey bi ñu fàttali leen lu toll ci ñaari weer a ngi ni Mali nag daal di dugg ci ab pëccëxoo bu doy waar ñu koy wax crise sociopolitique boo xamante ne mouvement du 5 juin ak nguur gi ñoo ci xëccoo mouvement du 5 juin bu ñu ko waxee nag xel yépp dem ci di ko pëccëxoo bi di wëy militaires yi daal di nekk ci mbedd mi soxti ñu di ko dégg ñu dem ba ci ngoon gi ñu ñuy xamal ne président Ibrahima Boubacar Keïta ak premier ministre bi di Boubou Cissé ñoom nag dañu leen teg loxo ñi leen teg loxo ñooy way fippuy ba génnee nañ leen fa ñu nekkoon daal di ànd ak ñoom jëm ca camp militaire ba mu waral jamono ji tiitaange gu bëri nekk fële ca Mali ba tax na waa CEDEAO daal di def ab communiqué diwoo militaire yi ñu daal di dellu ca caserne ya ñu nekkoon waa États-Unis tamit di ñaawlu cong gi ndax ñi nga xam ne lépp loo xam ne nangu pouvoir tegu teguñu ko ci yoon ñoom duñu mës a ànd ak ci loolu yemul foofu ñii woo way fippu ñu ànd ak dal kon mu mel ni jamono ji Mali jaxasoo na loolu ndax ka fay njiitum réew di Ibrahima Boubacar Keïta teg nañ ko loxo premier ministre ba teg nañ ko loxo ñi nga xam ne tamit ministre de la défense ak yeneen ministre teg nañ leen loxo kon jamono ji Mali mi ngi ci guddi gu bët setagul ñi xaar ci kanam fu muy mujjee ɓe ñogombulo arɓe fiflarɓe a ñamala seɓeni woro ni aye seɓeni woro a ñamala ni pee bo pi seɓeni woro seɓeni woro iɓe kaga sow aga soflo yen fe a ñamala yaga so kokoye bara banna pew pew an be armée fo armée mali an b'u bɛɛ fo k'u waliɲuman dɔn u ka wuli ka jɔ la vraiment ayons de foi on appelle ನಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀ ಬ್ಲೋಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿರು blonde rebala karibu ka so zon zon a so filɛ walayi ayiwa eh, kojugu kɛlɛbaw tasuma donnen filɛ nin ye tabo de ka eh, hôtel la bamakɔ kura ɲakila eh, manifestanw kelen do k'u ɲɛsi sisan o ma ɔ ɲakila kuran kɔni b'a a yɔrɔ la ɔ n'an ma an mabɔ nin yɔrɔ nin na a bɛna kɛ tiɲɛniba de ye ɲakila force de l'ordre tɛ yan yɔrɔ in na vraiment nin wagati nin na a tasuma donna a la ka ban u y'a kɔnɔna bɛɛ sagaje ka ban tabo ka yɔrɔ min filɛ bamakɔ kura nin ye ɲakila k'a muso ka salon bɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ a yɛrɛ ka hôtel tasuma de donnen filɛ nin a la nin mɔgɔw fɛ nin mɔgɔw dusu kasilen don n la nin wagati nin na an filɛ nin o yɔrɔ de la nin ye donc ka da kojugu kɛlɛbaw aw tulo kan k'a fɔ ko a ko laban a kɛra nin de ye tasuma de donnen filɛ nin ye tako ka hôtel la nin wagati nin na an bɛ bamakɔkura place de l'indépendance kɛrɛfɛla la ayiwa vraiment ko in kɛra kojugu belebele de ye Eh, nin wagati nin na n la a bɛna kɛ eh, dégâts belebeleba ye eh, nin wagati nin na tasuma donnen filɛ tapo de ka yɔrɔ la nin ye ko a muso yɛrɛ ka salon bɛ nin yɔrɔ kelen na hakɛto bɛ nin Asratou Asratou Asratou oyambe oyambe oyambe kopara pana kopara pana man nga u taa sɛbɛn nimɔrɔ e sɛbɛn nimɔrɔ taalaw ye mɔgɔw bɛ ka taa sɛbɛn nimɔrɔ buwaya fila buwaya fila harina manda ye sɛbɛn nimɔrɔ sɛbɛn nimɔrɔ sɛbɛn nimɔrɔ sɛbɛn nimɔrɔ.